asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk jullit yi mbokk àddina ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar collectif aar daara moo dellu si waat di leen yëgal xew-xew yi mu nekkee journée nationale di daara moo yegg si le 15 bii di ñëw incha allah mooy journée nationale bi ñu jagleel daara journée boobu nag waa daara di dinañ ko taxawal ci lu gën a yaatu ci biir ndakaaru ak ci biti ndakaaru incha allahu taala aar daara moom mi ngi jëm ba Koungheul alxamis bii di ñëw la 15 bu soobee yàlla ci weeru octobre bii ñu nekk waaye itam dinañ ko màggal fii ci kër Mbay Fall ca jumaa ja la 15 incha allahu taala ci gox yi ci ndakaaru yëpp dinañ ko fa wër beneen bi ci des mooy le 19 novembre incha allah bu dellu see aar daara dina jógeewaat Koungheul ñëwaat organiser waat journée aar daara fii ci Kër Massar le 19 novembre incha allahu taala yeneeni gox ñi ngi ñuy xaar bu ñu jógee ci Kër Massar dinañ communiqué waat gox yi ñu war a dem yépp incha allahu taala xanaa di fàttali mbokk yi rek ne leen aar daara li ko tax a jóg mooy aar daara tiis wi ñuy teg ci kawam ak métit yi ak yàq gi ñu leen di yàqal comme ñun ni ñu diine yare xamuñu violence xamuñu wax ju ñaaw xamuñu taal pëna xamuñu sànni xeer xamuñu dóorante ay yet lan la ñu xam mooy allahumma ñaan yàlla mu wattul nu daara yi waaye itam nu yëgal kilifa yi nga xam ne ñoom la suñu borom dénk tey ndomba tànk yi nga xam ne ci lañ mën a faagaagalee daara ñu yëgal leen ne daaraa ngi yëg ay métit ak i naqar pour nu yëg ko wax ji yëpp ñoo ko waral ñu ngi koy wax ci télé yi di ko wax ci rajo yi di ko wax ci internet yi ngir njiitu réew mi dégg ko ba nu yëg ne waa daara daal ñoo ngi yëg lu ay métit ak i tiis yi tege seen kaw kon ñu ngi joxaat mbokk jullit yëpp rendez-vous le 15 octobre ci Kungel inshallah taala ak fi ci kër Mbaye Fall ci jumaa ji incha taala le 19 novembre dinañ ci wat fi ci kër assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh